برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي له شكوري على حياتي عبدا قديما فاز بالآيات Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très louange à Allah, Seigneur de mes chers compatriotes, le Sénégal, ma chère patrie, bonjour. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de quatre voire cinq points qui font l'actualité nationale tout en y apportant mes suggestions, mes contributions à ces quatre points, voire cinq. Premièrement, il s'agit de l'affaire communément appelée l'affaire Cicelo ou le cas Cicelo. Je veux en parler pour une dernière fois, mais cette fois-ci en tant que conseil adressé à son Excellence le Président Macky Sall pour dire ceci, que le Président Macky Sall, Président de la République, devrait saisir l'opportunité que lui a offerte le Président Moustapha Sisselo pour rétablir la confiance et l'espoir du peuple sénégalais à son régime condition sine qua non de la réussite et du succès de sa gouvernance politique qui l'ouvrirait une large et paisible porte de sortie à la fin de sa mission. Effectivement, le président Moustapha Sisselo n'a jamais cessé de se comporter en bon conseiller en alertant sur des dérives de certains responsables gouvernementaux et pour l'intérêt de la nation et du succès du président Macky Sall. Et ceci concerne les détournements d'objectifs et de fonds pour certains responsables, particulièrement les fonds devront aller dans l'agriculture et les agriculteurs, nos chères populations, braves qu'ils sont, dépourvus de moyens, mais aussi vers les malversations, particulièrement la drogue, le commerce de la drogue, qu'il a déclaré et qui concerne certains responsables de ce pays. En réalité, le peuple sénégalais a plus que jamais besoin de justice et de transparence dans ce qui concerne ses affaires. Deuxième point, c'est la problématique du foncier. La problématique du foncier est une bombe à retardement au Sénégal. Et un exemple de l'échec de la décentralisation qui n'a jamais fait l'objet d'évaluation. Ces erreurs répétitives, il s'agit de la décentralisation, de l'acte 1 à l'acte 3, mène le pays vers la négation même de la République. Effectivement, il y a trop de malversation, d'injustice, de victimes sur le foncier au Sénégal. Et cela doit s'arrêter pour les générations futures et pour le Sénégal, notre patrie. Et pour ce, je ne peux ne pas donner l'exemple d'une alternative incarnée par une association nommée Touba Ca Kanam. Touba Ca Kanam est un exemple de développement communautaire à élargir sur l'espace territorial national pour l'intérêt du Sénégal. C'est une réponse à une solution et une solution à l'échec de la décentralisation, tout tant dans sa structuration que dans sa forme de leadership et sa gestion. Donc, au moment où les cadres, les, les intellectuels, les responsables d'autres pays limitrophes, nos voisins, s'imprègnent de ce cas de figure qui est un exemple de développement communautaire à multiplier, je ne vois pas pourquoi l'État du Sénégal ne saisit pas cette opportunité pour que l'exemple de leadership, de gestion et de structuration de Touba Tchakanam puisse servir à tout le Sénégal. Pour ce qui concerne l'éventuelle mise en place d'un gouvernement appelé par certains d'union nationale ou élargie, mais que j'appellerai un gouvernement de large variante, le président de la République devrait éviter les tromperies et malhonnêteté intellectuelle de certains responsables qui falsifient des diplômes et qui n'ont aucune expérience dans la pratique de l'administration sénégalaise. Ce qui lui a fait subir, d'ailleurs, beaucoup souvent des obstacles dans sa lacée au fast-track déclaré dignement et fièrement. Exactement. Le Sénégal, tout le monde reconnaît un pays qui jadis, des, depuis l'indépendance jusqu'aux années 70, voire 80, faisait partie des pays les plus riches en matière intellectuelle, se voit baisser cette richesse par la simple malhonnêteté, la simple escroquerie de certains responsables politiques qui, depuis lors de l'avènement des universités privées dans ce pays, ne cessent de falsifier des diplômes pour renchérir leur CV afin d'occuper des postes qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'honorent pas. Et cela est à par le président Macky Sall. En ce qui concerne le quatrième point, il s'agit de, de la loi votée lors du référendum dernier concernant la limitation et la rationalisation des partis politiques au Sénégal. Je pense qu'on doit travailler sur la proposition de candidature des coalitions à la présidentielle et je suis contre les intentions prématurées de candidature des partis dans une même coalition. Certains partis ont, depuis le début du, de ce mandat du président Macky Sall, déclaré leur engagement, leur volonté de présenter des candidats aux présidentielles à venir. Ceci est à déplorer. Désormais, le Sénégal doit limiter ses partis politiques et les rationaliser. Je pense que il est temps que, concernant les élections présidentielles, les candidatures se constituent au niveau des coalitions politiques. de ce pays. La déclaration de patrimoine faite par le président Macky Sall et qui demande à tous ses ministres et ses responsables, les, tous les responsables concernés du gouvernement, de le suivre dans ce, dans ce sens. Je considère que, très sincèrement, pour un président de la République, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre et ancien maire, la déclaration de, de patrimoine du président Macky Sall est logique pour un ancien président de la République, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre et ancien maire, la déclaration de, de, de, de biens du président Macky Sall mérite notre fierté et notre assurance puisque malgré élogieuse carrière politique et gouvernementale, avoir deux villas à la Padoie deux une villa à Niague, trois terrains nus à Fatik, Sebi et Almadi, un appartement aux États-Unis. Vraiment, cela est logique, cela est normal, cela est digne et cela prouve la volonté du président Macky Sall de bien gérer les richesses de notre cher pays, le Sénégal, qui en a besoin pour son développement et pour ses générations futures. Il suffit simplement de comparer sa déclaration de patrimoine celle de certains qui n'ont jamais été Premier ministre, qui n'ont jamais été président de l'Assemblée nationale, qui n'ont jamais été président de la République, et qui tournent autour des milliards, et qui ont des immeubles, d'énormes titres fonciers, beaucoup de villas, ici même au Sénégal. Donc je pense que eh, dans ce sens, nous méritons le président de la République mérite les applaudissements, sinon les encouragements du peuple sénégalais dans sa gestion. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. yéen sama mbokki sénégalais yi góor ak jigéen mag ak ndaw ma jiital ci suñu kilifay diine yi ak suñu kilifay aada yi maa ngi leen di nuyu di màggal di leen tatagal di leen wàcc seen wàccuwaay yu gën a kawe ah di ñëw tey di waxtaan ak yéen ci ñeenti walla juróomi poñ yoo nga xame ni ñoo lëmbee jamono ji eh, communication maanaam euh, information yeeg waxi réew mi te lu ci nekk rek amal solo réew mi ñu war cee wax buñ ci amee xalaat benn bu njëkk bi mooy lii nga xam ni tey jii ñoo ngi koy tuddee affaire Cissé muy mbirum suñu président Moustapha Cissé Lo euh, ma bëgg cee wax wax li mujj wax ju mujj ci li ma ciy wax muy wax joo nga xam ni ndigal maanaam ndénkaane la ak it yoon wu ñu ubbil président Macky sàll ngir njariñul senegal dama jàpp ni le président Moustapha Cissé Lo wax yi mu wax déclaration yi mu déclaré te yàgg koo déclaré caabila la ju ubbil président Macky Sall ay bunt yoo nga xam ne bu ci jaaree dina delloowaat réewum Sénégal yaakaar ak xel mu dal ci politique ak ci gouvernance am ndaxte lii nga xam ni moo di alal réew mi nga xam ni ñenn ñi dañ koy saax saaxee te mu war a dem ci baykat yi ñu soxla ko lool ak ci ndaw ñi ak ci jigéen ñi loola war wax yàgg na koo wax te kon loola président bu ci jaaree def li nga xam ni moom lañu waxoon ni am na loo nga xam ni kat kuréel goo nga xam ni nguur gi fi nekkoon lay saytu waaye am na kuréel gu bees goo nga xam ni sama nguur lay saytu yaakaar naa ni bu fekkee ni joxe na ndigal pour kuréel googu saytu ñooñu nga xam ni président Moustapha Cissé Lo ñooñu la xamal ni ñoom ñooy saax saaxee alal réew moomu loolu waa Sénégal dinañ ci bég lool. yii diit alal yu réew lewul yi jóge ci drogue ak jóge ci ay faux te président Moustapha Cissé wax ko ni ay kilifa yu bëri ci réew mi ci lañu ne moom i tamit noonu la. bunt la ba nga xam ni bu ci président Macky Sall jaaree ah ba jël ay daan teg ko ñooña nangu alal jañu ca jëlee réew mépp dinañ ci bëgg dinañ ci kontaan teg ku ci nekk ci réew mi ba ci ñi gën a tuuti dinañ jàpp ni président Macky Sall kat la mu waxoon ma ca te dinañ delloo yaakaar jiñ amoon ci moom loolu moo waral kon ma jàpp ni président Moustapha Cissé a ah, doon na conseiller bi jar tax ñu naan conseiller ndaxte kat lii mu ubbi ay bunt la yoo xam ni bu ci président Macky Sall jaare ah réewum Sénégal yaakaar dañ amoon ca moom ndax li mu leen waxoon te teg ko te di ko doxale moom ci jëmmi boppam dinañ ko gën a mën a gëm ndaxte dinañ jàpp ni loola yematul ci moom waaye dawal na ko yaatal na ko ci mboolem kuy liggéey ak moom rawatina kilifa yooyu nga xam ni ñooy saax saaxe alal réew mi ak ñoo kilifa yooyu nga xam ni ñooy dugg ci mbirum drogue ak mbirum phobie pour di am alal. bu loolu soo beneen poñ bi mooy mbirum suuf mbirum suuf ci Sénégal ku ne xam na nii lëmbe réew mi mbirum suuf nag bu ngeen seetloo li tax mu lëndëm lëmbe réew mi mi ngi commencé ci bi ñu daggee gox-goxaat yi ndaxte bu njëkk ba préfet ya gouverneur yi ñoo doon joxe suuf waaye bañ daggee gox-goxaat yi la jox maire yi ñoom ñuy yore pouvoir di dagg ay suuf di joxe loola nag. ñu jëlee woon ko ci politique bu ñu naan politique décentralisation politique décentralisation boobu nga xam ne moo pàccal réew mi def ko ay gox-goxaat politique boobu boo yàggat am ay ay ay ay ay ay ay rëq-rëq ay rëq-rëq yoo nga xam ni yu ñuy war a taxaw la yu ñu war a saafara te boobu ba léegi kenn waxu ci te rëq-rëq yi nag di gën di dem rek. te jàpp naa ni politique boobu décentralisation buñ ci arrêté wul rëq-rëqam yooyu fa muy jëlee Sénégal dana doon république ba nga xam ni turwaa fay nekk waaye dootu doon république ndax Sénégal day doon alali ay nit waaye dootu doon alali waa Sénégal loolu nag président Macky Sall it maa ngi ko ciy ñaan mu delluwaat ci ginnaaw xoolaat ko ñu évaluer saytu décentralisation boobu ba xam lan lañ ci war a dindi lañ ko war a defarewaat ba mu méngoo ak li ñu bëgg muy ñëpp yem ci alal réew mi ñëpp yem ci suufu réew mi loolu nag itam am na association boo xamee ni joxe na aw yoon ci loola muy association bi ñu ñuy tuddee Touba ca kanam doon association boo xamee ni wone na aw yoon woo xam ni buñ ci jaaree lii nga xam ni moo tax politique décentralisation muy gox-goxaan yi di sooxe ah loola dina saafarewu ndax ci ni muy doxe ak ci ñi ko jiite dañuy doxe ak ci niñ koy saytoo tuubaa ci kanam doon na loo xam ni lu ñu war a yaatal la ci biir réew mi ak ci bitim réew ndax suñu mbokk yi ñu dendal sax ci yeneen réew yi ñoo ngi ciy bàyyi xel di ci xalaat di ci gëstu ndax doxalin gi muy doxal ci ab diir ak résultat yim ci indi muy jariñu askan wi njariñu réew mi bu loolu weesoo ñoo ngi waxit ni président nee nañu day leen def day waajal dafa gouvernement foofa yi tamit ñu bëgg ko avertir rek ba xam ni seetlu nañ ni Sénégal depuis Senghor ba jamonoy Abdou Diouf luñ daan wax borom xam-xam Sénégal Afrique moom lañu daan jiital waaye loolu dellu na ginnaaw loolu léegi li ko waral nag mi ngi méngoon na en tout cas ak université privée yi nga xam ni bëri na léegi ci Sénégal li tax ma koy wax mooy bëri na fi ay homme politique yoo nga xamee ni ci université privée yooyu la ñuy jaar di garaate génn xaalis di jënd yi diplôme yoo nga xam ni amuñu xam-xam ba may artu président Macky Sall rek di ko xamal ni ko buy defati gouvernement na bàyyi xel ñi nga xam ni seeni diplôme diplôme yooyu dese leer xam-xam ya dese naa leer te mu doon ñoo nga xam ni tamit mosuñoo liggéey ci administration Sénégal ba xam sax nu administration ba di doxee ñu mel noonu boo leen falee dënk leen lu ponk yu am solo ci réew mi lu toll ni état ak gouvernement ah ñooñu yaakaar naa ni dañ lay indil ay ay sooxe rek dañuy sooxe rek waaye duñ ci mën a am ndam ndaxte wolof njaay dani loo jàngul mënoo ko tari te nit ki lu mu doonul taalibeem mënta doon euh, sëriñam kon président Macky Sall ñu lay xamal ni daal bu ñu sañoon say nomination yi muy nomination gouvernementale comme nomination politique ngay bàyyi xel expérience boo nga xam ni nit ki dina ko am ci doxalinu réew mi ndax jaar na ci administration réew mi xam ni réew mi administration am di doxe agit ndax diplôme yi mu yore mu néew ak a bëri mu tuuti wala mu mag doon na ay diplôme yoo xam ni yu légal la yu wóor la yu wane ni xam-xam bi am na ko bu loolu weesoo eh, muy problème mu candidature parti eh, présidentielle élection présidentielle yi maa ngi fàttaliku ni fàttali Sénégal yëpp ni dañoo defoon référendum ci biir référendum boobu mu am ci loi boo nga xamee ni li ko taxoon a jóg mooy wàññi parti politique yi ba ñu méngoo ak réewum Sénégal ndax gën a amal njariñ Sénégal loola nag ba léegi tey jii jëmmalaguñu ko liggéey boobu defaguñu ko ma jàpp ni bu fekkee ni gëm nañ ko te muy dëgg ci ñun ñi ko woote woon ñëpp warul waratuñoo gis parti politique bu jóg taxaw ni candidat partem am na candidat ci élection présidentielle yi dañoo war kay fii ñu toll coalition yi fi ne bu ñuy wax waxi élection présidentielle coalition yi bu ci nekk xool tànn candidat ci biir coalition bu ñu bëggee wàññi parti politique yi yaxanal ko yaxanal alal réew mi te amal njëriñ it Sénégal waaye loolu gisuma ko ndaxte bi mandat bu mujj bi président bi bii ñu nekk tey président Macky Sall mandat bii di door a commencé bi mu ne bërët commencé rek am na ñaari parti politique yu bokk ci benn coalition président Macky Sall yoo xam ku ci nekk wone nga ni bëgg nga présente candidat ci élection présidentielle yii di ñëw loolu nag ma jàpp ni du yoon rafetluwuma ko ndax bu fekkee ni ñooña parti yooya li ñuy woote woon référendum daan ci eh, waar nit ñi ngir ñu woote référendum boobu dëgg la ci ñoom kon waruñoo déclarer seen i kan ni dañuy am ay candidat ci seen i parti waaye dañoo war a liggéey lu tax coalition yañu ne présenté ay candidats yoo xam ne candidat wu coalition yooya la buñ bëggee alal réew mi ñoŋ te buñ bëggee itam réew mi gis boppam ci doxalinu waa réew mi gis boppam ci doxalinu gouvernement yi lii daal mooy li nga xam ni moom laa indi woon tey eh, lépp nag ci kaw rek bokk ci réew jàpp ni boo bokkee cim réew lafay xew nga am ci sa xalaat bu ne docteur bi xool na feebar ba seetlu feebar feebar ba bu fekkee ni yow am nga ci xalaat wala am nga ci saafara war ngaa wax boo ci amul saafara nag mën ngaa noppi waaye boo ci amee saafara war ngaa wax te magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko ma jàpp ni kon lii defuma ko lulul luy dooleel suñum réew lu ñuy benn loo luy boole ñu ñun ñëpp teg ñu ci yoon wi nga xam ni mooy yoonu dëgg wi def Sénégal réewum naataange def Sénégal réewum jàmm waaye defit Sénégal réew moo xam ne ay nawle lañu li ñuy waxoon un peuple un but une foi muy ñoo bokk pas-pas ñoo bokk lu ñuy bañ ñoo bokk lu ñuy jomm waaye ñoo bokk fu ñu bëgg jëm muy nataange wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي له شكوري على حياتي عبدا قديما فاز بالآيات